وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين comme ni ñu leen ko waxee woon ci théorie bi ci wàllu nan la ñuy jàppoo te yaakaar ni dana dëppoog njàppal yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, léegi bi ñu jógee ci théorie bi te mooy doon wax nan lañu koy defee su àndeek nit ki di ko gis xëy na du ñàkk mu mën a xam euh, nit ki ñëw na di jàpp comme ni ma waxee woon xam ngeen ni yéene kenn du ko tudd waaye ci xol lañ koy nit ki du wax ni na waytu an atawaddaa wala mu wax ni yéene naa jàpp déedéet ndax yéene bi comme li ma waxoon rek bis bi mu jógee pour jàpp moo xam day julli ay ñaari rakka wala dafay julli julli farata wala dafay jàpp ngir jàpp rek ngir jaamu yàlla foofu bu ñëwee li mu war a njëkk a def bu fekkee robine la wala satala la ñun nag gis nga ko mi ngi nii satala la ñu yor di ko jàppoo pour nit ñëpp mën a gis ni ñuy jàppoo waxoon naa ni ci biir njàpp mi nit ki su ko neexee mën naa jàpp ñett ñett wér na mën na jàpp ñaar ñaar wér na mën na jàpp benn benn ci cër yi nag dafa am cër yoo xamante ni nombre bu nekk li nga lim rek nga koy defal bu dee ñett ñett yoon nga koy def bu dee ñaar ñaar yoon bu dee benn benn yoon mais am na ci cër yoo xamante ni moom benn yoon rek lañ koy lañ koy kii muy massa lu mel ni massa bopp ak nopp moom benn yoon rek la mun a nekk kon su boobaa loolu ñu bàyyi ko xel kon nak li jitu ci li ngay def ginnaw bi yene bu duggé té xam nga ni yene bi walu xol la kon japp mi bu nga ñëwé ngay wax bismillah bismillah lepp lu mu dugg fay daal di e sama lima nara japp moy jàpp mooy ñett ñett pour mu gëna mëna mën leer ci nit ñi waxon na ni ténqali manam dañ koy raxas ñett yoon kon bismillah gis nga ko ni raxas ténq gis nga ko nii nga xalil baaraam yi moo xam nii nga koy xalilee wala nii wala nga xalilee ko nii wala nii bu la neexee loolu mi ngi dellu rek ceew ci ni nga choisir waaye nii baax na nii baax na kon gis nga raxas naa loxo yi benn yoon te muy tinq yi indiwaat beneen ñaar yoon nga bàyyi xel nag ni njàpp kenn du ci yàq ndox sangu janaaba kenn du ci yàqu ndox ndax inna allaha la yuhibbul musrifin boobu mooy ñaareel ñaar yoon ñetteel yoon bi daa di ñëwaat gis nga ko nii raxas ténk yi loxo yi ba ci ténk yi ñetti yoon kon loolu moom mooy ñaareelu mbir mi ginnaaw bi ma waxee bismillah ñetteelu mbir bi moom mooy ma ñëw ci daa di gàllax ndiku bul fàtte ne gàllax ndiku waxoon naa la sa baaraam doo ko sotti ci biir kon avant ngay jàpp dafa jaaduwul nga soccu kon galax ndiku bi tamit bul faté ni mom ak sarax ndiku ñom ñuy and gi nga ma soté ni galax ndiku tank na gis nga ko muy ben ma ñëwaat ci ñaarel bi gis nga ko sex nii ñaar yoon ma ñëwaat ci ñettel bi xex ni gis nga ko kon gis nga tank na ci sama ben loxo jor guux sotti bakkan bi génne ko kon loolu moom mooy gàllax ndiku ak saraxndiku ñoom ñooy ànd mais amaa dugal baaraam sotti nag wax dëgg yàlla bokku ci mu des ñeenteelu mbir bi ñeenteelu mbir bi moom mooy sëlmu gis nga ko sëlmu ni nga mi sa mu naa ndox mi waxoon naa day tàmbalee ci cetu kawar gi fi muy saxee ci jëbi ba ci sikkim bi lépp dafay daal di tooy gis nga ko ma sotti gis nga ko nii daal dinaa raxas muy sëlmu benn yoon mooy lépp daj na li tàmbalee ci nopp ndeyjoor ba ci càmmoñ li tàmbalee ci fii kawar gi saxe ba ci suuf muy zàq ni bi benn yoon ñaareelam gis nga ko noonu ñëwaat naa beneen loxo bi gis nga ko indiwaat naa loolu bu fekkee dafa am sikkim da koy xalil li mooy xalil taxliilu lihiya mooy sikkim bi yëpp mën a dugg ndox mi mën ci dugg muy ñaareelu yoon ñetteer yoon bi gis nga ko kon ñëw naa léegi ci ñetteelu raxas bi ma ñëw ci lu ci topp moom mooy raxas tëkku jara bi wala ténk li ba ci concoli loolu tamit gis nga ko ñu bàyyi ko xel ma ñëwee gis nga tànk naa ndox mi nii gis nga ko nii laa sotti raxas gis nga ko dalku bi da cee bokk te moom mooy moom mooy ragg bi te moom mooy raxas gis nga ko day daj ba romb ba romb li ñu koy waxee te moom mooy conco bi gis nga ko ñaareelu yoon bi ma ñëwaat la même chose gis nga ko defaat ko ñetteelu yoon bi ma ñawaat kon loxo ndeyjoor bi jaan bu leen fàtte jàpp nag lépp lu ñuy def ñu jiital cëru ndeyjoor yi lépp lu ñuy def ci jaamu yàlla cëru ndeyjoor yi moom moo ci gën mais ñëw ci loxo mooñ bi gis nga mu ñëwee ci loxo càmmoñ bi ma neexee mën naa ko déparé fii ci kaw ñëw ci suuf gis nga ko nii mën naa ko def moo tax it bu la neexee mën nga ko déparé fii ñëwaat kooku mi nga aju ci nu mu la juboo rek gis nga ko moo ñëwaat ci ñaareelu yoon bi gis nga ko ñëwaat bu leen fàtte ne comme tëkku jara bi raxasoon nga ko doo fi nekkaat di xalilaat ndax loolu bokk ndax tëkku jara bi moom moo nekkoon nii ñetteel bi gis nga ko nii ma ñëwaatee raxas ba lépp daj juróom-benneelu mbir bi mu des masaa bopp masaa bopp waxoon naa ni benn yoon la mook nopp ñooy ànd duñu tàqali ko kon gis nga ma ñëw sotti ndox gis nga ko massa gis nga ko nii li tàmbale ci fii jéb yi sax kawar gi saxe ba ci doq bi nii ma def nii massa bul fàtte baaraam bi gis nga ko nii ma teg indi mu ñëw ba àgg ci doq bi ma delloosi ko su ma ko delloosee baaraamu de yi moom lay samp ci biir nopp bi gis nga ko baaraamu dey yi moom lay samp ci biir nopp bi maanaam ci biir ak ci biti ci biiti nag mu des baaraam bi nga xamante mooy baaraam yu mag mooy baaraamu dey gis nga ko ni moom la ñuy def ñoom ñooy ànd kon masaa bi benn yoon la moom mënut a nekk ñaari yoon benn yoon lay doon kon loolu kenn ku nekk na ko bàyyi léeg-léeg soo xam day jàpp ñëw def ndox massa bàyyi defaat massa bàyyi defaat massa bàyyi ñëw ci masaa yooyu ma bokk benn yoon la soo tànkee ndox mi teg nii rek gis nga ko massaal ba mu àgg nga delloo si samp baaraamu joxoñukaay bi ci biir nopp bi gis nga ko war waral ko ni jël baaraamu dee yi mu raxas kon gis na foofu moom mooy nopp yi foofu tam dafay daal di jeex mu des nag raxas tànk yi tànk yi tamit gis nga ko comme waxoon naa la ni ñetti yoon bu dee moom nga yéene jàpp wala ñaar yoon wala benn yoon tànk yi gis nga ko nii fi ngay tàmbalee bis gis nga ko ne ni ngay raxasee gis nga ko baaraam yi baaraam bi di dugg ci biir nga ko lii mooy benn yoon am nga benn raxas gis nga ko bu la neexee nga ñëwaat ñëwaat ci ñaareelu rax ndax tànk ñetti yoon lañ koy rax bu fekkee ñetti yoon nga jàpp ñaar yoon bu dee ñaar bu fekkee benn yoon bu dee benn gis nga ko ñaareel bi wala ñetteel moo nekk ni mu ñëwaat indiwaat gis nga ko kon mooy tànk bi daa dina par bul fàtte nag fii boo fi àggee waylun lil mi na naar mooy baaraam fii ci suuf kostani dañ koy bomb ba nga xamante ne ndox mi dugg na gis nga ko noonu kon tànku ndeyjoor bi daal dinay pare mu def tànku càmmoñ bi moom it nga ñëwaat gis nga ko fi ngay tàmbalee moom mooy ci baaraamu sànqalañ bi nga sotti moom it raxas gis nga ko noonu nga koy defee muy benn gis nga ko nga ñëwaat muy ñaar gis nga ko nga ñëwaat muy ñett comme ni ma la bul fàtte lu mel noonu gis nga ko ku sën bi yëpp def nga ko légui nak fofu amna erreur bu ñu bari di def dañuy jàpp ba pare jël ndox cheikh ko cheikh nuy joxoñ baram lolu dedet bopp ko ci bo paré fofu ci japp mi rek li ngay wax moy ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin su la neexee nga tek ci subhanaka allahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilayk loolu bu la neex nga teg ko ci waaye daal boo paree njàpp daal li nga war a wax mooy nga seedeel yàlla seede yom ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin subhanaka allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayk loolu mooy melokaanu njàppul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaan yàlla mu defal ñu ci tawfiq defal ko ñëpp te ñu xam ni yéene bi rek wa ma tawfiqi illa al islah sama yéene nekkul lu dul ki nga xamante ne xëy na amul jot mën a tiim téere mën a jàng mu mën ko caa jëlee kon daarul birr loolu la leen indil ginnaaw bu ñu paree ci lii dinañ ñëw tamit ci melokaanu tiim ginnaaw buñ ci paree dinañ ñëw ci nan la ñuy sangoo incha allah après ñëw ci julli lépp lu ñu jàpp ne rek mën naa jëriñ julli ñi incha allah danañ ci taxaw dinañ ñëw ba ci néew nan lañ koy préparé nan lañ koy sangé nan lañ ko wa sallallahu wa sallama ala nabina muhammad wa alihi wa ajma'in wassalamu alaykum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuhu وكذلك أوحينا إليك روحا من ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور